bi la ubbi tay tëj tay wala dem bay ubbi tay tëj tay mbir mi yéene kaay ne en tout cas Macky Sall be waaw daal dinay dàq nag bis bi nga xam ne maanaam moom la ñu waroon ubbi classe yi de tay la dàmboog ci sem si waaw nee na ministre Sénégal ci boppam de daa war a tekki ndomba tànkam nag laa la wax waaw waaw parce que nag yow mbir mi ci boppam kon doxul a c'était déjà le fiasco sur kër yéene ginnaaw nag maanaam taf yëngalay làmbatu gi nga xam ne kon moom la ñu nu mu compté commencement ba de waaw Macky Sall ah daal dinay raté nag ubbi télécolam ba sa rentrée waaw libération yi ne kay ne fukk ci ay jàngalekat yoo xam ne kon maanaam doomu jàngoro ji kon dalee na dugg de ci diwaanum Ziguinchor so waaw ñoo waral coow la lu tolloo a quarantaine hmm. le soleil yéene nañ ko nag ba jëmi jamono ngir bañ nag musiba mbaaba kuma kon daal di am ci réew mi la ba sobli ne en tout cas gouvernement bi de waaw daal di ne reculé dellu na ginnaaw ginnaaw nag ay waxtu yu néew laata concrétisation ubbi parce que ñoom nag dañoo lànk naari tëdd ca suuf ne duñ nangoo gis dëgg gi lée nguur gi nag léegi daal di lay wutoon ab prox na loo xam ne foofee la jaar ke sapatoire waaw maanaam ci jàngalekat yi nga xam ne kon dañ leen a xool ñu am kon doomu jàngoro ci Ziguinchor wala gaa yi jaar génn daw yéen a kaa gi ne te gis nga laata loole waaw enseignement privé catholique bi de jàngalekat jàngalekat yi ci privé catholique bi waaw ñoom xamle woon nañ carrément ne du ñu ubbi seen école yi tey tey ginnaaw suba le quatre juin waaw jàngalekat yi nga xam ne tam maanaam ni ñu leen doon delloo mbir mi tam aj nañ ko ba jëmi ne lii nag weddi la désaveu boo xam ne kon maanaam def nañ ko ministre éducation nationale de waaw waaw moom mi nga xam ne kon dafa naroon a jël nag askanu école bi yëpp dugal leen ci guta musiba mbaa ba kumba ab suicide collectif su saane dañ leen a test suñu possibilité bool daal di tëj kon école ba Macky Sall ak Mamadou Talla nee na ñu ñul me daw nañu de waaw libération yi ne kaane Dakar mooy capitale doomu jàngoro ji laa la wax maar day daal waaw parce que nag lu tolloon ñaari junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay cas moom la ñu fi gis deux mille sept cent quatre-vingt-cinq cas la ñu recensé allahu akbar la ilaha illallah le soleil yéene kaane dama ne la téeméer boo jël lu ëpp juróom ñaar ko ak ñett ñoo am jàngoro ji kon si Ndakaaru ñaa jël juróom Matam de ña ngay dooga am na seen cas Fatick Dakar ña fa feebaroon kon wér nañu Abdoulaye Diouf Sarr ci bëgg suba bi nee na gis nga ëllëgu Dakar ko déggandoo te askan wi ah. Ah. ne mar day tali Abdoulaye Diouf Sarr yëpp foro ndaxte nee te gis nga Dakar njaay jël jóob ji day ah. ci boppam kon dana nulu si mar day tali ilaahi la la termine yéene kaa waaw daal dina may ne Sénégal lu tolloo juróomi junni ci ay kitu des rap la côté yooyu yéene kaa ne gis nga yor yi nu covid 19 ci léy ah ngi dund ak ay musiba mbaaba kuma di ay scandale parce waaw daal eh, ne dundu gii tardé ah, eh, transporteur yi la yaa jum wala maa jum loolu am Abdoulaye Diouf Sarr ah voilà Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen eh, waaw enquête yéene kaa ne en mi dé ak wàllum koom gi lée ni ñuy dundee ne fi mu nekk nii ci musiba mbaaba kuma miti gi lé jeexagul de jéede bos fobi di ne xoolal ma ndaw si benn maire am na ak juróom benn la wax fi ba mu dee ca Touba jee néew ma dee jur na fa musiba maa ba kumba ah, waaw waaw parce que njabootam gi jee dañ ne daa ay cëram yoo xam ne waar day taali kilifay mor ko ba weddi nañu ko jigéen ñay sang néew kon raxasu nañ cax sur sa année mais loolee kay kenn mësu koo gis nag laa la wax bog soobli ne ñi nga xam ne nag ñooy liggéey ci wàllu wér géram nekk ci collectivité locale yi dee waaw boo ci grève la ñu jëm parce que junni m yi yéene kaay ne jàppal bayal gu daal moo amoon nag samedi kon ca Cap Skirring ñooñu bu sell rek la kon juróom benn blessé Ousmane waaw nee na ñu jël junni ak juróomi téeméer ci ay milliards def ko ci am autorail di ab train teew Cap Skirring gële amuñu ndox mu ñu naan allahu akbar critique yéene kaay ne baa du gendarmerie ba dañoo dugal sous préfet ba Moustapha Diakhaté a la wax Mamadou Abdoulaye Sow nekkoon ministre budget ci laas warul toog ca conseil des ministres ba vingt quatre heures yéene song na xas attaqué nga xam ni kon ñu ngi koy attaqué moomu dama tar si day ndax askan wi la ne Amadou Ly DCO Akilee ci enquête yéene kaay waaw nee na man day dama choqué les écoles yéene kaay ne Sénélec de rëcc na Sénélec dañ koo naroon a fees le quotidien yéene kaay ne mais contrat Akilee ak Sénélec bi de doy na waaw nee pare na ngir négocier waa contrat ba ak Sénélec te jamono ministre ba tar waaw nee na waxtaan ak directeur Sénélec foofu démba bi tey eh way samba laaste Ousmane Sonko de ma ngay dooraat ay activité politique am vacances ak na jol delluwaat mbay ma mayee dara tamit di semaine bi ne kii Mari Sagna ci l'Observateur waaw nee na Abdou Karim Gueye xurum xaax waaw ba kanama ca xottu gerte de mar di tali xurum xaax cour un grave danger la wax Ahmed Youssouf Dentalun de ci la solo yéene kaay waaw nee na gis ngeen dimbal lii ah ñëpp ci war a laal waaye xoolal ñi dawal Jakarta jàngalekat yi nekk ci privé bi le ñooñee ñëpp bokkuñ neel kaw nag nouvelle vision tay di leen jàppale ci wàllum dund ak lu ni mel ñaari weer sans salaire Ahmed Youssouf Ben Saloum day bu kaw nag waaw daal di leen dimbalee ci diw liin ci ñaari téeméeru njaboot deux cent famille ak ñaari junni ci ay mas la jox waa njàngam ak njàngale ma l'observateur ne ñetti yi nga xam ne moom la fi mbas mi am day waaw ñetti weeru ci tànge ñetti weeru soono di galère ñetti weeru ay bakkan yu rot trois mois de peur de et de mort allahu akbar la ilaha illallah te yàlla président nee na nañ leen jéem a dëkkandoo ak doomu jàngoro yi moo tax lu fi mbas mi nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk pétrole bi moom duñ ko fàtte mukk ci àddina parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal